الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ديجان بيكام كويدة محاضرة غنى كودا غنى المحاضرة وارنا منا بيكام مقام لولو لكو وارنا منا اللي على الموي مسألة هم منا دو ديجان غنى خم شريعة نمو نقوى نمو نمو dafa am ñu tuddee tafsir ci wàllu sharia ak borom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo koy weddi lan moo tax ñu weddi eh, ndax kii weddi gàmmo daf koy weddi ci kaw ne jullit yi dañoo daje fi benn béréb di waxtaane siira yonent bi ñu ne loolu daganut déedéet ndax dañ fa daje di waxtaane seen diine ñu ne loola daganut déedéet ñi am xam-xamu diine dañ lay wax ne bis bu mu mën a doon ci àdduna boo bëggee dajale daje ngeen waxtaane siir yonent bi man ngeen ko def bis boo bëggee daje nit ñi bëgg a waxtaan ak ñoom ci seen diine loolu mën nga koo def kenn terewu li nga xam ne moom la ñuy wax ne moom la ñuy tere mooy nga tànn bis boo xam ne da nga ne bis bii bis la li zaatihi nga xam ne da nga gëm ne daganul nga avance benn bis def ko avant wala nga bàyyi ba ca bis ba ca tegu nga door ko caa def nga ne jaamu yàlla gi ci bis bii rek lañ ko mën a defe soo tànnee bis boobu dañu lay laaj dalil soo amee daliil boo xam ne da wax ne moo tax nga tànn bis bii nga xam ne fukki fan ak nangam la ci weer yu war cee def jaamu yàlla gii nga ci war a def soo amee dalil loola day jaadu ñëpp fekk la ci boo amul dalilam nag danga sos ci biir diine ji lu ci bokkul li lay won ne bis bi boo ko tànnut li daatihi amul problème moo di abdullah ibni masud radiallahu taala anhu sax na ci xadis yu wér ne daf daan def alxames ju nekk mu dajeeg ay àndandoom jox leen ab dars wala bu la neex nga tudde ko ab muhaadara boo xam ne semaine bu nekk mu def ko ci alxames ñu ne ko nun de dañoo bëggoon bis bu nekk nga defal ñu lu mel nii mu ne leen déedéet damay def ndànk ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la ko daan defe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana yataxawwaluna bil mawisa maanaam daf ko daan def léeg-léeg maxaafata assaama maanaam ngir ragal ñu yokkat foofu li nga fiy jëriñoo mooy alxames boobu Abdullah ibn Mas'ud tànn gëmul ne loolu ci alxames rek la mën a ndax biñ ko ko laajee néewule naa ah lii kët mënta nekk bis bu ne parce que par alxames la mën a nekk waaye def na leen li tax mënuma koo def bis bu set mooy bañ ku yokkat nga daal di fay jëlee ne kon yow bu la neexoon tey man nga tànn bis boo xam ne da nga naan bis bi bu jotee dinaa ci def sama waxtaanu diine wii lu tax nga di ko tànn mooy jàpp naa ne bis bii dimanche la te nit ñi ci la ñuy ëpp jot mm-hmm. kon na ñëw def ko ci dimanche bi waaw ndax da ngaa gëm ne soo ko defoon samedi du baax wala même boo jekkiwoon ba ca suba sa muy mardi bi talaata bi nga def ko ci ndax dadul baax nga ne ah ok dana baax kay jaamu yàlla bi bis yëpp la mën a baax waaye bis bi li tax ma tànn ko lu caagi ni dafa gën ci bis yi lu caagi ni dafa am leneen lu ci xewoon waaye dama ko tànn ngir nit ñi ci lañ ëppee jot te Abdulaay bu Mas'ud noonu la ko tànn loolu moo waral yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ne noonu mu ko waxee daf leen daan def léeg-léeg léeg mu bàyyi kenn waxu la la ko daan def mooy wane ne kon lay reegal ba mooy daganul ci ëpp jullit mu sos lu toll ne ak iid boo xam ne jaamu yàlla lañ ko jagleel boo xam ne danga nga ne bés bii rek ci lañ ko mën a def ci at mi ba bés ba jël ñu door koo mën a defaat te fekk amoo ca dëgg loolu soo ko defee loolu tàbbi nga ci biir bi daa mooy indi nga ci biir diine ji gëneenu iid loo xam ne bokkul ak iid yi nga xam ne moom la lislaam indi woon ndax feet yi lislaam indi woon ñu xam ko kat mooy korite ak tabaski beneen boo ci dolliwaat nag boo xam ne da ngeen koy daje di ko feetoo loolu moom la borom xam-xam yi tudde bidaa ci diin loolu moo wutale conférence wala waxtaanu diine wala ngeen te xew sax ngeen toog fa di fa waxtaan ci seen diine wala ci xew ngeen di fa waxtaan seen diine loolu moo ko wutale ak tànn bis boo xam ne da nga ne bis bii bisu mawlid la boo xam ne da nga jéem a tànn juddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir màggal bis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkoon ne dañ koy màggal ci jàngal siiraam kooku bis bu set lañ ko war a def wala daa war a bari lool ci dundu jullit yi dañ ko war a jàng ci école yi war koo jàng ci daara yi war koo jàng ci jàkka yi ba jullit yëpp mën koo xam waaye li mu yeyoo ci askan wi damay faral di wax ne ëpp na benn bis boo xam ne dañ koy tànn ci at mi di wax ne bis bi ci la ñuy jàng si yore yoonu si sallallahu alayhi wa sallam wala ñu ciy jàngat wutal ko bis rek loolu mooy. mooy problème waaw jazakallah xeer docteur. Euh, waaye dafa am beneen cal yu fi nekk mooy ne ñoom euh, dañu jàpp ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme defutoon muhaadara kon loolu ñun tam su fekkee def nañ muhaadara loolu dafa doon bidaa parce que ñun mënu euh, ñu leen di tere mooy ne suñ dalil mooy ne yonante bi defu ñu ne su fekkee yonante bi defutoon mawlid ihtifaal bi mawlid kon muhaadara tamit defu ko woon xaw ma lan nga ci def taw ji incha allah ki lay wax deful muhaadara su fekkee daf laa bëgg a wax ne yonent bi jullit yi dajaloo wuñ mu di leen waxal ci seen diine waaw ah, kooku jàngut si yow yonente bi alayhi salaatu wasalaam xamuñu ñaata yoon la fekk jullit yu dajaloo ba bari fi béréb mu ñëw di leen waxal ci seen diine wala mu woote ñu ñëw bokk daje mu waxal leen ci seen diine dañ daan wax ne asalaatu jaamia bu dara xewee ñi bokk ñoom ñëpp dajaloo ci jàkka ji su fekkee du waxtu julli wala dara mu wax leen lim leen bëgg a wax lépp bu dee lu aju ci seen diine bu dee lu aju ci seen àdduna mu expliqué leen ko mu leer kenn ku nekk jël risaala boobu yóbbu yooyu moo dem ba ci wàllu moderne dem bañ tudde ko muhaadara woo nit ñi ñu daje fi béréb nga waxal leen seen diine dama ko daan defee ci jàkka ja ñu julli ba àggal mu toog waxal leen ba dégg lañ dégg ci seen mu dem loola wuute wut ak li nga xam ne lañ tudde muxaadara tey moo ka koy def li tax jam wutalu ko benn bis boo xam ne dana ci bis bi rek des ko mën a def comme niñ koy def ci yeneen bis yi ci des fiikum docteur khairan docteur Muhammad Ahmad Lo Euh, moo doon tontu lu aju ci ihtifal euh, idi mawlid nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, jàpp naa ne képp koo xam ne bëgg nga am lu la leer wala bëgg nga dégg dégg te topp ko am nga ci lu la leer incha allah ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na ko yàlla fay te may ko wér may ñu tamit ñun tamit nopp yi dégg te ko topp incha allah wa jazakumullah xeyra barakallahu fiikum